lañu rey incendie wul parce que ni mu juddoo la dafa dem nañu ko indiwoon noonu lañu ko delloo te day ñëwaat it ngeen baal ma man li ma bëgg a wax wax yàlla xajul fii su fekkee dëgg rek ngeen bëgg a dégg man na may fanaanee wax ba fajar li ma bëgg a wax xajul fii ni may def rek sant ñëpp gërëm ñëpp tey encouragé borom daaru ñi nga xale yi nga xam ne waaw xam nga lii ma soxna doon takkal au nom du parti soxna ki ñu ko tuddee soxna Faty Issa maamam lañ ko tuddee mais comme kii mooy maam Thierno soxna di ma ko takkal taxaw nii maam Thierno taxaw nii léegi ma ne ko nag comme man te interprétation lu nekk dama koy interprète ma ne soxna bàyyil borom daaru takkal ma ko mais mais loolu duma ko firi tey wuy ma loolu duma ko firi tey daanaka yéen ñii moom daanaka yéen ñii ñu ci bare xam nañ fi ma waxe du dëgg waaw waaye ñi ko xamul dama leen koy dig dinaa ko firi dinaa ko faram-fàcce ba mu leer naññ naññ naññ dafa am loo xamante ne bi illahumma yatahajabu إلهم يتهجب إلهام من يتهجب إلهام من يتهجب إلهام من يتهجب ngeen baal ma xam nga waxi malaaka boo ko bëggee wax lu nit waaye loolu yëpp ndax ku tedd ki bi mu nee اللهم بحق وجه الله تعالى صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه دفنك وألهمني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم إلهاما يتعجب منه العجم والعرب والعام والخاص maqbula mardiya amin ya rabbal alamin léegi nag du waxu fii gaa waaye dinaa ko junj ëllëg gi si biir fu ngeen dégg am riir ci ay ilhaman yataajab na ngeen déglu message bi nga xam ne moo koy firi ba kenn du jaaxal kenn ndax itam nag dafa am leneen lu war a xew ci 2012 bi loo xamante ni bii waaw loo xamante ni bi dina daj réew mi lu bokk tëg jël assemblée <laughs> lu bokk tëg jël assemblée assemblée moom assemblée moom bu ngeen fa duggoon itam maanaam bu ngeen fa duggoon itam bu kenn cim xelam nag lu tax néewul bu nu fa duggoon bu kenn wax la ko waaw am na yoo xam ni moom ni nga koy waxee rek la ñu koy dégg jàpp ko ni bu ngeen fa duggoon itam day gën a sàppaa jooni ba pare ba noppi gën a saf koroñole maa ko wax ma défendre Cheikh Béthio nag yéen ñëpp déglu leen uskutu aw usmutu premier tour yi Cheikh Béthio daf ne Serigne Saliou deuxième tour yi mu ne moom faw ngeen dégg wax daf ne Serigne Saliou daf ne Serigne Saliou Abdoulaye wat gagne premier tour deuxième tour mu ne man Béthio Macky Sall gagne xam ngeen lu tax

te bu leen kenn nax 6 ak 9 la Macky 6 la woon ñu wëlbati ko def ko 9 sotti ci la ak def ci jarul xuloo jarul xeex ma ñëw ma ñëw ma ñëw bu doon Moustapha Niass wala Tanor wala yooyu yu demee noonu sax nga ni waaw mais wax naa ko góor gi nee naa ko kii du sa adversaire c'est ton fils dafay ñëw pour passer examen du loolu am na diplôme yépp ñëw nag diplôme d'état des loolu la rek il faut nit ñi woyofal leen ko bu kii na ku nekk jàpp rek réew mi sunum réewa kii mënul dara dafa bëgg lii nanga mag ki nangam jaru ko na ku nekk rek def li ko war rek waaw mu baax jamono ñooy kenn mënul mag yi mënul keneen mënul benn citoyen mënul yàlla moo man waaye yàlla nag dafa bëgg ku dynamique dafa bëgg mobilité ku mobile dafa bëgg koo xamante ne bi ku brave dafa bëgg ku lefo dafa bëgg koo xamante ni bii bu toog jotee nga toog bu noppi jotee nga noppi bu dox jotee nga dox bu tëdd jotee nga tëdd bu wax jotee nga wax waaw buñ nee dafa bon nga rafetal ni daf koo nur waaye doon ko loolu la Serigne Touba di jàng bàyyi kii daf daan wax ni bala la si sikk dooyee doo wax sikku si jàmm kenn ku nekk am nga sikk am na ñoo xam ne dañoo bëgg lekk ñu naan dañoo gourmand fu ñu naan dañoo dañoo foqale am ñoo xam ne dañu naan kii du lekk moo tax dafa ràgg am ñoo xam ne dañu naan du nelaw guddi foo ko fekk ni ku kër kër yi di kurkur yi mel ni ñam mel ni kama xam teer kurus waaw quatre heures du matin ilhaman yataajjal kenn du Sëriñ Tuubaa man ma ma ñëw wallahi du kenn te kenn du moom te nañ ko waxaat 2012 bi balay jeex lu nekk dina xew wax naa ko kii 2012 bi 2012 mooy 221 mooy l'indicatif du Sénégal mooy Kara Kafra Alif eh, déglu leen Kara yi bari de fii am na Kara sax yu fi nekk man damay kii rek Kara yi bari karaa yi bari na déedéet karaa yi bari na mais dama ne karaa rek ki mu doon kay moo waral nu daje fi wallahi ñu ngi koy sant moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul loolu dinañ ko waxaat ma ñëw tuuti xam naa ne ñi koy dégg bariwul waaye damay bëgg yii xew bu xewee ñu xam li tax ba ko tubaab bi soog a yóbbu Gabon njaal benn nga saa yu dañu koy maaj lool xam nga wax naa leen léegi ilhaman yataajab dem dafa waxoon boroomam ni ko ñoom bu ñu ma teew terewul julli ak woor ak werd ak bind li may bind rek lu ñu nekk mën naa ca ànd ak ñoom ndax day mel ni ñom lay defandol te man ma nga ci wasafati safa rang ya nga xamni mom la malaki def di sabbal seen borom mom ca loolu la nek moo buñ ko xeye woko pour mu solidarité mu taxaw jublu jublu penk mba mu jublu xebla bu ñuy wax lañuy wax mom muy wax li muy bind nan hada lisani wa hada tafakkuri man khalami jahal fawkha askar ma ñew ñoom bu ñuy wax la ñuy wax mu ne man de yàlla moo jubal sama làmmiñ moo ma jox éloquence te moo ma jox une pensée parfet da tafakkur yi yàlla mi def loolu de moo def sama plume sama bind moo gën a kawe seen quartier gi ak seen troupe yi inna kitaabati la dal am waaj mox ji la dul askar wala afwaaj loolu la daan maaje loolu nag bii

sama sëriñ bee di sama soppe di sama lépp moom waa Kara sécurité yi ñooy xaritam muy sëriñ Moustapha Saliou bi mu déggee ne dañuy maaj ñoom lay yónnee ay barkeelu te ni mu xamee li nekk ci biir keneen ku ko xamee noonu itam yéenee leen ko noonu léegi nag bu ñu déposé liste yi ba noppi incha allah fekkoo ma ñuy wax waaye defe naa ne wax nañ ko parti de la vérité c'est un parti national parti la pour ñëpp bunt yëpp